asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax bëgg ñëw rek am benn waxtaan bu gàtt euh, waxtaan bi nag soo leen gisee mu soxal ñu lool c'est parce que ay doomu sénégalais la la seen vie dépendre parce que tey Sénégal nag nanu waxante dëgg yegg toll nañu foo xam ne tout est possible dans ce pays te ci loolu sax dinaa ci ñëw suba ndax am na suñu beneen mbokk patriote boo xam ne dañoo dem këram pour arrêter ko fekkuñu ko fa mais famille bi yëpp la ñu arrêté ba xale yu am deux ans ak xale yu am trois ans ñëpp la ñu arrêté ci biir kër gi yóbbu mais tey loolu du waxtaan bi te gis nañu aussi li xew fële ci CEDEAO dañ ko ci junjaale maanaam nguuru Sénégal lu toll ni nguur. li tax ñoom lii seen alibi ñu ne li leen gàllankoor pour ñoom ñu dem CEDEAO dem plaider ji ñu ne euh, coupure courant tudd nañ ko ci coupé ci ay coupure internet maanaam wax seen fay seen ay faay te bokk na ci aussi ci ñoom liñ fa yóbbu woon fële ci euh, CEDEAO euh, bokk na ci li ñu yóbbu ci ay firnde doo leen ko gëm bu ma leen ko waxee de waaye ay vidéo montages yu Anita ya nangi ngi fàttaleku fee euh, page euh, bu faux boobu nekkoon ci internet bi euh, te ñu bari nekkoon ci ginnaaw maanaam seen page boobu nga xam ne fausse information bu ñu bëgg a jàllale fa lañ koy jàllalee page boobu nga xam ne foofu la ñu demoon ñoom fekki Ousmane Sonko ci àll ba photographier ko ak ay bagage am di ko génnee ci page yu ñàkk xorom yu mel noonu donc faux vidéo yooyu page yi doon diffusé faux vidéo yooyu la jël yooyu dafa bokkon ci yi nga xam moy mooy seen ay firnde fële ci CEDEAO waye ba léegi lolu tamit dinañ ci ñëw benen jour benen mbir bi aussi degg nañu Sénat addu ci mbirum Ousmane Sonko ak gouvernement machiavélique bi nga xam mo nek sur place du ma ne gouvernement waye cartel bi nek sur place wa CEDEAO awa ah, Sénat bi nee gouvernement Sénégal plus particulièrement DGE pour ñu jël lii nga xam ne moom mooy ay liste parrainage Ousmane Sonko ñu dugal ko ci ba pare ñu jël listam jox ko ko voilà ginnaaw ba ma defee débriefing yooyu parce que mënuloo ñëw tamit di bëgg a waxtaan ak ay nit te ñu am kumpa gu bari ci li nga xam ne moo xew ci réew mi tey doo ci addu donc ginnaaw ba ñu paree ci lool ñu tege ko d'abord ma ñëw nag ci aali kalaj gi voilà kalaj gi defe naa ñun ñëpp xam nañu ne camp bu Sénégal foofu la ñuy denc prisonniers yu jigéen yi ba si suñu yaay ju baax jooju Ami Dia ki nga xam ne elle a été accusée de terroriste ci ay fen ay tappale moom Ami Dia camp la nekk xam ràññee nañ ci aussi ñoom Falla Fleur ak euh, Mati Sarr Niang Mati Sarr Niang muy aussi taskatu xibaar boo xam ne moom it ma nga foofu ci camp pénal yaayam sax bitim réew la ne woon fii waaye jamono jii ñuy wax ak mi ngi senegal te ba lii nga xam ne moom moo dal Matif Sarnia moom indil na ko moom feebaru xol moom yaay ji feebaru karja bëgguma dugg nag ci dossier médicalam te duma ci sori waaye Matif Sarnia yaayam mi ngi ci guddi gu bër setagul fi mu ne nii ci Sénégal ndax jaay doole bi nga xam ne moo nekk ci réew mi Euh, keneen ki di Falla Fleur Falla defe naa ñun ñëpp fàttaleku nañu la fameuse Falla lu dul vraiment muy juriste di nit ku xam loi di def loo xam ne rek toujours ak ak yelleef rek lay def duggul ci benn tappale day def li nga xam ne rek moom mooy akam ak yelleefam ci Sénégal Falla boobu tamit jaay nañ ko doole voilà tëj ko noonu ci biir kaso bi di leen jaay doole waaye dafa am loo xam ne moom moo tikke suñu attention Falla Fleur yéen ñëpp gis ngeen temps yi passé atte nañ ko ba war koo tëj ñetti weer nee ñu fekk tëdd na lu ëpp ñettiweer donc desul woon lu dul ñu bàyyi ko mu génn madame Senghor ki nga xam ne moom mooy patron wu maanaam moom moo jiite prison wu jigéen yooyu ndeysaan muy jigéen nga yaakaaroon ne dina ak ak dina ci ba c'est devenu totalement le contraire madame Senghor mi ngi gérer di camp comme cartel Madame cartel drogue cartel Madame nekk chef de bandit ñu dénk ko ay nit di diriger kom ku yor ay xaram yor ay bandeem ak ay reykatu nitam di leen maltraité ñaaw teef boo xam rek moom madame Senghor mi ngi leen koy teg waaye tey dafa am leneen lu ci rax Ismaïla Lo le musicien international la loo dafa am doom bu jigéen bu tudd Marie Lo marilo gudi ñuy wax ak yeen ma nga fële ci camp pénal marilo lan moko yobbu camp pénal dafa turiandé lu tollok ci 600 millions li ñu jotta xam wayé ñi ñu ngi naan ëpp nako parce que dafa dem di jël ay xaaliss ci ay nit né mom dafa am contrat d'état ñi 20 millions ñi 40 ñi 50 ñi 60 tuddu nañ ci sax ba tuddu ci borom salon bu siiw ci Sénégal bo xamné momit jëlal nako 25 millions moom Marilo moom la ñu tëj fale ci kampenal pénal Marilo nag umpul kenn pour yéen ñi ko xamul moom mooy jabaru Aliou Sow Aliou Sow di ministre bu Macky Sall boo leen xam maintenant Aliou Sow bi waaw Aliou Sow menn lawbe bi donc Aliou Sow moom mooy jëkkëru moom moo doon jëkkëru Marilo Marilo moomu mom la madame Senghor lequelol, mu créé gang ci bir prison bi écoutez déglu len ma bu baax m'ou mu Ismaïla Lo la madame Senghor lequelol, mu créé gang ci bir prison bi di torturer de traumatiser di kher di douba di katal di di di def ñaawtef bo xam rek moom Marie Lo mi ngi koy def jëmale ko ci patriotes yu jigéen yi ñu tëj foofu parce que madame Senghor dafa mere patriotes yu jigéen yi parce que nee na dafa ñoo defoon grève de la faim patriotes yu jigéen yooyu by the suñu sœur aji ndaw ci la bokk mu Italie léegi moom mariloo la madame Senghor jël moom Marie nag madame Senghor comme yéen ñu bari li ngeen ko xamee ñii ñu ngi naan Ah, en tout cas dégg la dégg-dégg lañ ci am nee nañu bisexuel la moom madame Senghor bi ci prison bi nee nañu day jéem a sakku comme bu gisee xale bu jigéen bu taaru wala ñoomin seen yi ñu yóbbu ci biir kaso bi daf leen di jéem a sakku ci pet dégg naa nag am na ci ay jafe-jafe ak ñenn ñi mais moom ak Marilou amuñu boobu difficulté donc ce que j'ai compris moom déggoo na ak Marilou ñu lëkkaloo di attaquer prisonnières yu jigéen yi fa nekk te moom Marilou bokk na ci aussi gouvernement Sénégal liñ ko dig pour mu bundu xataal doomu jàmbur yooyu foofu ñaawteef buñ ko sant mu def ko ñaawteef bi foofu defe naa barki démb barki démboo njaay sax dégg nañ fi benn situation boo xam ne bi ñu demee ba jekku xale yu jigéen yi Mom, madame Senghor dafa créer sabar lolu dañ koy def fofu, ga pour mouiller pour muy de ci bir kasso bi yenn dañuy créer xalé sabar wala ñu créer leen ben musicien ñew may leen ay wala dara lan la madame Senghor def biñu bundu katale patrioti, bundu katale, bundu katale, ba patriote yi li di génn ba aduna yeb yeko légui dem ba danger public patriotes yi nag gars yi pareloon leen benn guddi goo xam ne maara daytaali yàllaa ñu suturaal rek comme coow li bari na mu mujjee fomm guddi googu waaye patriotes yi liñ leen waajaloon moom dafa bëggoon créer tënd ndiir tënd beer tënd beer ah sabar ci biir pour bruit am comme ça ci biir bruit boobu ñu ne wala mbir mi dafa am sëmbaxloo ñu rey ay patriote xam nga tey ci biir prison bu ñu nee ay prisonnier xeex nañu diw ñàkk na bakkanam diw ñàkk na bakkanam dañuy ne rek ay prisonnier ñoo xeex mais fekk madame Senghor moom ci boppam moo nekk ci ginnaaw mbir mi jël ko nag teg ko ci loxo marilo bandi bi parce que mariloo dara jomb ko imaginel doomu Ismaïla bu nekk ci biir Sénégal bu yoon ak ministre mën a détourner plus de six cent millions bu ñu xam six cent millions yu ñu xam la loolu loo xam ne loolu leer nañu xobet xobet mais dañu ne xale bi délinquance kansam romb na foo ko foo weesu na fépp foo xalaat am na sax benn woykat bu siiw bu jigéen boo xam ne aboon na ko fi ay takkaayam defe naa yéen ñëpp déggoon ngeen fi coow loolu moom Marilou mu dem ci woykat bu siiw boobu app ko ay takkaayam ba pare jël jaay donc moom c'est une délinquante reconnue et acceptée wute na nag ak doomu jàmbur ba nga xam ne waxul deful son seul délit mooy dañ ko jaay doole accuser qui terroriste accuser ñële Li, accuser ñële Lele, accuser ñële attente à la sûreté de l'État lu ne ñu attaqué ko doomu jàmbur boo yooyu ñu att accuser len ko tëj leen kenn ki comme ni ma len ko waxee taskatu xibar la sax mom Matissar Sarr Niang foofu la ñu toll ci Sénégal waaye dañu bëgg a jël sénégalais yépp témoin yéen ñëpp on vous prend témoin ne madame Senghor jël na ay gangster ay bandi yu mel ni Marilo ñu def gang ci biir prison bi pour sakkal pexe doomu jàmbur yooyu nga xam ne defuñu dara grève de la faim yooyu ñuy def ba pare information yi di jàll parce que patriotes yi nag ñoom foo leen denc coow dafay bari parce que patriotes yi li ñu leen denc ci camp information bi day génn parce que ñun dañuy bëgg xam nu ñuy dundee foofu waaye moom bu meree patriotes yi la koy dem sippi di attaquer doomu jàmbur yi di leen duma non moom du leen duma directement mais di fay ay bandi ci biir kaso bi ku mel ni Marilo xam naa nag du ñàkk nañu toog tuuti rek léegi ñu dégg Marilo bàyyi nañu parce que dañu bëgg rek mu jëlal leen bakkanu benn patriote wala ñaar waye on prend tout le Sénégal témoin te ma bëgg ma dànkaafuwaale Ismaïla Lo ak soxnaam ngeen dem wax ak doomu bandi delenka vulgaire bobu mu bàyyi doomu jàmbur yi parce que li Sénégal la de boo t-shirt bi ma sol gat gatsa la wax te xamante nañ ci biir dëkk bi te bëgguñu Sénégal xat ci yéen ndax len indi ci combat bi dañ leen ci épargner bayi len tout tranquille waaye doomu jaambur yi nekk ci biir kaso bi continuer leen leen bundu xataal mooy yi ngeen ni di ngeen ñu dégg ci ay fan yu néew te bis bu ma fi ñëw ate ci marilo tey dafa rafet tey xam ngeen dama rafetal dama jël mbir mi rafetal ko wax ci li nga xam ne dama was lu àq waaye bëgg naa Mariloo xam madame Senghor yow mii ñu jox doomu jaambur yi nga nek une vulgaire délinquante là-bas au camp pénal nga japp doomu jamburi di len attaquer di len kokotal nga ne da ngay résister patriote yi kenn résister bis buñ fi ñëwaaté ci yow billahi dama la koy waatal jour bobu di nga reccu lutax yalla indi la yow ci adina yak sa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi rafetlu aussi patriote yi combat ci mbirum Amadou Ba ak suñu sœur boobu ñu jàppoon moom tamit ñibbi na këram ak jàmm ak salaam ñu leen di ne nañu continuer résistance bi parce que ñoom seen banditisme ñu ngi continuer ba léegi bëgg a tegaat loxo ka nga xam ne mooy journaliste bi di Pape Alé Niang loolu wax nañ leen ko demb waaye bu subaa dinañu gën a ñëw ci live bi gën a yaatal incha allahu rabbi ci tappale yeeg ñaawteef yi nga xam ne moom la bandi yi nekkee ci biir dëkk bi waa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu